grand frère si Cheikh Wade waaw maa ngi représenté presque famille maag sama grand bi di sama turandoo papa di grand si ñun tamit yàgg na cas bi leer na te demee na noo xam ne waru ko woon demee nekk image boo xam ne ñaaw na si Sénégal kenn souhaité wul image yi di am sa dëkk waaw am na cas xam bu amee nag waroo xaar sax je pense que famille di def plainte yaanaa loolu ñu jiitu war nañ mën a placer waa bañ mën a continuer seen enquête xam waaye ñun waa ji dong soxaluñu gis nañ tamit euh, non assistance bu si am koo xam ni dafa daanu si tali bi auto police ñëw même pas 3 mètres def si benn assistance loolu tamit war nañ ko régler ñu nekk si oto bi yëpp war nañ def enquête ñoom ñëpp ñu topp leen lu ñu la war a toppee waaw loolu la ñuy souhaité lu ñu la war a toppee ñoom da lu ñu la war a toppee dafa bari ak ñu ngi xaar ñu ngi déglu tamit am na yoo xam ni xam nga même famille bu yëngatuwul sax waaw loo xam ni daal citoyen lañ lañ lañu tiré te luñ luñ ko gisee si image yi moom moo ne autopsie bal la bal bi ñëpp gis nañ ko ci image yi amul sax luñu bal réel la amul sax luñu nekk fii di di di lëndamal yooyu waaw amul ku ci war a jéem a dëgg tànkam parce que image yi dafa wër àdduna yemul Sénégal rek tey boo ko jéemee dëgg sa tànk yow yaay daanu mbaa yow yàlla yàlla mi ko leeral boo moytu yow lay effacé te mbir mi dafay leer parce que Cheikh du n'importe qui du liñ ko jëf duñ ko def ak ni ko àdduna leeralee ak nit ñu ñu wowlu ñu ñu ñëw suñu ginnaaw ñëpp war nañ xam du n'importe qui te moom moo ko def Cheikh yaakaar naa gën na ko demin parce que ñu ngi sante yalla di gis ñaan yi ñu koy ñaanal presque aduna ñëpp ñu koy ñaanal kon ñun amatuñu luñuy luñuy waaw suñu xel dal dal na me mom mais le fait que mom mu ñu fi surtout man may fréram jir ci si affaire yi dama ci def luma mën wasu si ak def sama lay katan ba lim fi bay ni muy muy muy luñ ko tek luñ ko tooñ ni ma dem ci ba jeex tak and ci sama ay mbokk nak ak ñi nga xamni ne tamit ñu ngi may jappalé fu ne waaw wétuma ci mom waaw franchement ci aduna bi mi naaxa lijjanti mom loolu mom mom allah man mako ko promet bu nekkon sama place man li ni ma taxawé non lay taxawé motax dina tok lu ci yoon war yépp dinañ ko def ba luñu luñ ci luñ ci may nak ñu santé ko yalla waaw leneen li ñu teg ko si loxo yalla te waaw ñaari dal mo am fi day am procès alakhiratam day am procès parce que yalla ku ray dina ko dink bo taxawé dink ko layoog mom te bis bu jaxaro seex dina ko layoog mom waaw kooku dal mu ngi tok mu ngi nan mu ngi lek gore trop di xeexal dëkkam taxaw yoru arme yorul dara xam nga di xeexal dëkkam nga ñëw nga ko di ko jaay doole affaire de lâcheté la affaire de criminel am na yoo xam war ñu woon xaar sax famille di plainte waroon na leer bu yàgg mais tamit la ñu ngi ñu ngi ñu ngi jëm ñu ngi dem si yoon nag duñ du te yoon bi ragaluñ ko am na ñoo xam ni waaw ñu ngi ñuy taxaw bu baax te loolu fii ak fan yi néew di ngeen ci xam dara di dina dina gën a leer waaw mais ñun delluwuñ ginnaaw si kanam lañ jëm parce que dafa war a leer waaw bien sûr yow Fatim Sénégal yëpp xam nañ ne tey bu doon Cheikh moo nekk place waajooju kon du fanaan këram billaay wallaay du fanaan buñ ko filmé wul woon sax dinañ ko loqati fu ne xarañ nañ ñun am nañ ci ñoom confiance xarañ nañ xarañte goo xam nit fu mu laaqul ko loqati mais ki def lii tey ama famille porte plainte laa lay wax war ko mën a tëj ba leeral yi parce que moo doon indi jàmm yooyu ñun yalla mooñ dimbali bañ am jam mais mënon nañ and ak safara go xamni dañuy dem ñu ray ñu rek ba ñu tëj ci kasso bi dañ koy jaayanteeg ñoom mais image sax da koy wane bo gisee nu muy doxé sax xamni xamni ki xamni ki xam ne kii ponkal la ponkal la du du si du ci ku ndaw mais pourquoi pas ñu ko ñu ko téye lool moy suñu question ñun ñëpp am yo xam faaw ñu xex ko faaw ñu xex ko pour que li mu bañ bañati ko de benn doomu sénégalais parce que neexul ñu ñu koy dund xamnañ ni neexul ñeneen ñu nga xamni xamu ñu xex ñu ngi ba extérieur dañ koy lu dañoo joy ba son kon lool ku mu dal ku ne fay metti duñ ñaanti yalla ñun muy dal benen benen sénégalais parce que ñun ñëpp ay doom sénégalais ay deret sénégalais muy daw suñu yaram ke def lool ñun sant ñuko muy twitter suñu sita ñun ñokay fay suñu ay impôt daf ñu wara a défendre di gérer suñu sécurité mais pas que muy viser ay arme di diga tirer citoyen loolu irresponsable la c'est irresponsable ta incapable dafa way mu do xam sax moo yow koy parce que loolu bu do mala sax yow du ko def mala bu fekkon cheikh non taxaw yo drapeau xàmme mala sax xanaa xaan mën na drapeau Sénégal du ko sax du ko sax laal da koy romb ni mais ku yor drapeau am yoru arme yorul dara taxaw moom kese amaana nit ñi ñu ngi si ginnaaw moom lu mu def suñ de la di war a paix jàmm jàmm diggante force de l'ordre ak population bi yow nga làqatu affaire de lâcheté lu may wax rek làqatu viser ko tiire xool fu mu fu mu la neex nga tiire ko loolu sa yaram du daw sax affaire sax ngay lekk sa salaire yow di ko lekk yaa sa njaboot nga tegen yow nga teg yaa yaa ngi lekk lu neex yaa ngi lekk riba te deretu deretu doomu aadama bi nga rey moom ngay dundee kooku waratul sax sol yenn kii suñu ñu soxla wuñ ko suñu dëkk parce lii gàcce la dëkk étranger nag ñu ngi gis yenn image yi dañ jéem ñu ngi dégg américain yi lu ñu fi wax barki dem mais am na yoo xam waruñu ko nangu waaw man ne ba mbir mi commencé si morgue ba ba nuy génne cheikh ba ba fu toll nii ay doomu ñuy tàllal loxo pour dimbali ñu pour lan pour ànd ak ñun pour lii mbir mi nekk leer parce que nekkatul affaire u Seex Wàdd nekkatul affaire famille Wàdd fu doon affaire bi affaire jeunesse sénégalaise la affaire nation la parce que tamit li mu doon la parce que imagine toi yow un jeune boo xam ne ni jóg na di manifester librement ñëw taxaw croiser ses bras yor sa drapeau national wala tëgg yàlla wala nga am la honte di viser te yéen bu ñu jëloon seen caméra yi ñu ànd ak yéen ba si oto bi mu tax laqatu woon di viser xale bi ba traite dóor ko si bopp ba ne rey na ko wax ñu loolu loolu gis nañ ko film film yi wane en plus police bi tourné waat ñëw ba si ba tim Cheikh fi mu di mu taw mu freiné xool ko ba mu ñu xool ko mu neex dem seen yoon non per non non assistant à une personne en danger ah kon léegi ñun ñun ban dëkk la nekk tey jii dama ko wax sànq nee naa leen bu bi def 24 heures di leen jàpp ak ki assassiné mais pourquoi ñun ki assassiné suñu seex ñun ah ñu bàyyi ko mu libre c'est pas normal fu nekk ban ndëkk la nekk jo jàppuñu si kenn ba tey joxuñu kenn ki jàpp nañ ko joxuñu kenn ki jàpp nañ ko mais doomu aadama ya fa nekkoon man nekkuma woon mais ña fa nekkoon ak film yi la fa nekkoon xam na identifié nañ ka kan la xam na boppam moom si boppam bu toogee conscience tranquille dina xam ne moom mii moo def lii ay collègue am dinañ xam ne moom mii moo def lii pourquoi ta rendre boppam mën am mënu am honnêteté bu tolni ni rendre boppam ne man ma def les faits pour libérer libérer le minimum mu honorer défunt bi xam nga mais di day ben ni ma tay la day melni xar la ray mais du yomb wallahi azim rey na xam la ni ku cher la ci famem ku amul ku amul yakar ku ñep amul yakar cheikh musulma dégg ñu ne ma kaay àtte fii cheikh kay wax li cheikh kay ci cheikh def li musul am dakar ba tol ni tol à 32 ans ah je le pour lui tey ji ñu ñëw abattre ko comme un chien xaj xaj sax boo ko reyee am na am na am na noo koy reyee autrement doomu aadama xam nga ñaano trop ba tey gi dégguñu benn justice réclamé wala def leen ni wala def leen wante nag du suñu loxo bu gàttee yàlla dinañu jàppale ba mbir mi leer waaw di sant tamit sénégalais yëpp di sant le monde entier ndaxte ñëpp ñu taxaw depuis ba mbir mi amee ba léegi billahi ku nekk ngi doon ñëw doomu aadama mu nekk yaa ngi woote ñii ñoo ngi jël seen seen temps ñii jël seen alal ñii lu nekk ñoo ngi koy def ak maanaam di partager ñun di jo di nu joole li nu ñàkk kon tey jii euh, avant tout de dañ remercier ñëpp nag parce que lépp da ngay gis ku yor portable am sax rongoñum tuuru gis image bi sa rongoñ tuuru kon kooku ñun amuñu ko mën ñu ko fay ñoo leen di ñaanal yàlla ñun ñi fi xam ne ñoo fi des yàlla nañ fi yàlla bàyyi ñun ñëpp yaa ngi dégg ñi xam ne tey ñoo jiitu ji yal na leen yàlla xare àjjana parce que maanaam euh, yëg-yëg bi foor na trop te it nit ñu doomu adama yi def tamit rafet na fu nekk doomu aadama ñu ñu fay ñaanal di jàppale di ñaan nag toutes les autorités compétentes compétentes yi nga xam ne nii mën na ñoo soutenir ah ba xeex li mu bañ ti fee am wax dëgg yàlla dañ surtout waa mu leer mu leer la ñun surtout mu leer parce que bu leerul rek li li ma leen waxoon rek dañ si da ko dana koy répété bu leerul dinañ jàpp ne Amdy Tony bu taxaw suñu kanam dinañ jàpp ne yow téye l'assassin de Cheikh te loolu warul suñu diggante ak ñoom dana war suñu am ñoom mais lii bu amul yoon bu amul billahi lazi man Modou Wade policier bu ma gis nga sol Anthony du ma la agressé du la agressé de mais dama lay xool bëtu bëtu assassin kon valeur ba nga waroon am amatoo ko si si man te noonu koy noonu koy ñàkkee si keneen ak keneen loolu la bu leen population loolu dal leen amatuñu kóolte seen agent de sécurité kon y a quelque chose kon nañ ci veille bu baax ba yoon def liggéeyam ñoo ngi woo képp koo xam ne ni intérêt Sénégal intérêt défendre doomu adama ñor na la ah nga ñëw jàppale ñu ba lii leer ba ëllëgati kenn xamul ndax man suma ma man la kenn xamul ndax kii la kenn xamul ndax keneen la kon dañ ko war dañ ko war a xeex na ñëpp seen génn ku si mën a jàpp na nga si ñëw jàpp ba lii dootu amati si réew mi parce que lii kenn mësu koo xam sunu Sénégal doomu sénégalais ñoo tiire doomu rey doomu sénégalais en flagrant te deful dara <sniffs> lii dafa ñaaw il faut mu arrêter il faut ñu jëm ko arrêter ak lu luñ ci mën nag ak lu si waaye mën a jàpp ba lii mu arrêter ba ku def lii euh, mu fay mu fay mu fay quoi parce que tamit soxla daal ñun waaw yoon rek lañ soxla a def liggéeyam